état wu Sénégal lu mu mën ci taxawu kaaraange askan wi doyul rawatina commerçant yi. ñun ñi ngi leen di wax ne Auchan ci ñun la bokk nañu leen aar comme ni ñuy aaree yëpp Sénégal di aar ñi nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci secteur yëpp même bu dul ñoom rek képp koo xam ne kii danga ngaa état bi di Sénégal étranger ak ñëpp ñi ngi leen di wax ne état Sénégal na aar ñëpp. ñu ngi yëgal waa état Sénégal ne ko banques yi ñu jar a jàppale lañ banque sénégalais yi lii leen dal te mu jóge ci band yi nga xam ne ñoo tëj réew mi yàq saccagé lépp état Sénégal bu jàppul banque yi problème dana am. ñu ngi soñu commerçant yi ñu jël seeni matuwaay di assuré wu. gunge leen day jafe ndax xam nga su fekkoon ne ñun amoon nañ fi assurance pour affaire u mais mënuloo fexe ci àddina ba commerçant bi nangoo jël assurance. te boutique boo xam dafa lakk amul woon assurance amul dara ne leen di état di jàppale day jafe parce que amuloo benn benn fichier boo xam ne man nga ci jaare ba xam ñii ñi yàqule nu mu leen di fayee. gannaaw loolu ñuy artu ngir jaaykat yi ba ñuy yokk njëg yi ngir jàppale askan wi ci tabaski bii. dañuy attaqué toujours ne bu julli gi jub dañuy yokk prix yi inaa ko waaye sal bi mu sosoo ba tey amul benn feet muy tabaski muy kori muy màggal muy gàmmu boo xam ne deful lii. ànduñoo ak nit benn benn commerçant boo xam ne dafay jaay marchandise primé wala muy def contrefaçon wala muy nëbbu marchandise loolu sax dama ne amut parce que nëbbu marchandise ab commerce foo commerçant moo koy def. UNACOIS Yessal di métti lool la bakkan yi rot ci manifester yi tey ñaan waa F24 ñu ajandi seen marche bi ñu bëgg amal ñeenti fan balaa tabaski.